du lu mën a mën a teel a dindi ci nit te mbëri dañuy sànnantee korte waaw dañuy dañuy njabarante dañuy liggéeyante dañuy defante defante bi yëpp du du du du caagi nag mbon ak kala koy def waaye bëgg laa daan la ndax xuloo sax sën la nit ki booy xuloo moom sax da nga ko waxal loo xamut waxuma la nag ngeen di def dëggal di bari di dóorante loolu la waaye gis nga mbiru rab yeeg mbiru jinne yi ñuy wax ci mbëri la ëppee waaw ci mbari la ëppee te xam naa ci xam naa ci yu wér waaw am na combat yoo xam ne am na si fi ñëwoon ma wax leen damay demee waaye dama ne loolu du ma ko waxati ndax faalun li maa yurid yàlla dara safu ko mën na laa wala suba mu dindiwaat ko kon détail yooyu du ma ci duggati man ndax kilifa laa doomu soxna laa te damaa bëgg di faj soxlaay jàmm ñi ñëw ci man di am ci man yaakaar yaakaar ko bu mu tas moo tax mbiru làmb du ma ci sori waaye xam naa ci lu bari it te xam naa ci ñi nga xam ne sax bu leen yàlla dimbale danañ nekk roi hmm. waaw loolu yëpp alhamdulilah noonu laa ko xamee ci politique bi noonu laa ko xamee feneen ak feneen waaye nag fan lañ toll comme si à mbër yu ndaw waaw mbër yu ndaw gis naa ci ñaar ñoo xam ne buñ góorgóorlu danañ nekk roi mbër yu mag yi euh, mbër yu mag yi actuellement non non ko ci mbër yu mag yi. mbër yu ndaw yi kan nga gis. ñett kon gis naa ci ñett ñoo xam ne buñ góorgóorlu danañ nekk roi gis naa ci euh, booy kii subhanallah. non non booy pikin bi. waaw booy ñang hmm. waaw bu góorgóorlu dana nekk roi euh, beneen booy pikin bi bu góorgóorlu dana nekk roi waaye mën naa am nag du teel ah. waaw sa jugut ci boppam dëgg mën naa am du teel mais mu nekk roi. ah Boy Niang. Hmm. Hmm. Boy Niang moo gën a nekk ci yoonu te roi bi kan yi Ama Baldé. actuellement nii lii xew nag mën nga xëy si deneen xew suba hmm, mais li ma ah ñetteel bi rëg-rëg waaw booy boobu mën naa nekk lu nekk ci làmb macha allah bu ko cat bu ko hmm, naa nekk lu nekk ci làmb bu ko cat teelu ta jàpp cest maanaam mbiru làmb dafa nekk yëfi jinne moo moom dafa doy waar parce que moo football yam kenn mënu koo jàpp nii da ngay jàpp xam nga nu mel comme laalo la laalo ju tooy nga jàpp ko ni muy windeeloo ci sa loxo bi mën nga koo napp ba ne ko nuuj waaye booy xef rek windeeluwaat na noonu la làmb mel mën ngaa jàpp mën ngaa jàpp mbër ba ne ko nuuj tëdd di nelaw rek ñu jekk la fa nga nelawee yow sëriñ sëriñ si dañuy jekkuwante. Hmm. waaw waaw dañuy jekkuwante dañuy jekkuwante kort yooyu. Hmm. sëñ bi mën naa sànni kort wala mën naa sànni kort kooku moom. doyul ma xëy sànni korte maa ngi koy defee ci lii rek poqe lii poqe la lii rek ci laay defee sànni korte lii nag ci laay dindee ci laay dindee liggéeyu bon yi ne ci doomu adama lii lépp la am dindi korte lépp lii lépp la lii xam nga lan la xamoo ko de lii reenu neew la bu sax ci digg dex new gu ndew ndaw gis nga gis nga sawkaay reenu neew la gu sax ci digg dex maanaam sëriñ si nañ bàyyi di nax yi mu jaral la ngay dem ci àll bi di uti ay garab di ko utal say client di jëflanteeg ñoom xam nga lu tax léegi liggéey maam jëf defal nit mu gis bëreetut parce que da ngay dugg ci marché bi ne jaay ma xobu nangam ñu jaay la xob woo xam ne nii leer la ne du du doon la jaay ngaa ko jëfandikoo ko doo gis résultat la sëñ fekk fekk fekk la nga ut man su heure bu ma jeexalee ay garab du ma dem ci marché di jënd maay taal sama dugg ci àll bi futteeku fay ay booy ñu yéeg bu ma àggee garabu new garabu siddem garabu dànq garabu di tax garabu nangam yéeg dugg ba àlli Casamance ba dem baati njaaxa baati ndar baati xolóoral ah ñaami na fuludu biir biir gambi biir baati uti garab yëpp def sama oto sama maal ñëw bu ma ñëwee takk takk yu bokk bu ci nekk mu bind ci mbuus dugal loolu moo tax du ma du ma liggéeyal nit te du ko gis cagatu taal nit cagatu gi gi ngay dégg ñu naan sëñ ko defal lu mu gàtt gàtt boo teewul ci at loo ma sa téye nangam nangam googu googu googu ci lee la koy defee rek ci renu new moom la ñuy wax secret dunia àdduna Mm-hmm. lu si waat ci mm-hmm. euh, ak euh, Bombardier mm-hmm. euh, Eumeu Sène ak Lac de ah dana neex nag waaw mais Balla Gaye Bombardier bi damay ragal surprise am ci surprise waaw damay ragal surprise am ci ci côté Balla Gaye encore Alla daan ñu daanaat ko. dama koy ragal waxuma mooy am. nay leer dama koy ragal li ma gisagum Bombardier moo teewagum làmb ci actuellement ni xaw ma luy xew après ndem dana am euh, euh, Lac de Guiers damay ragal mu mu demee nem demee woon. Eumeu daanaat. loolu laay ragal moom tamit Modou Lo Ama Baldé damay ragal mu nekk combat bu soof. maanaam. maanaam fa ko fa ko nit ñi xaar mën na fa a yegg sax. Hmm. Hmm. mën na nekk combat boo xam ne bu soofu la nit ñi dañ naan ah. mel comme loolu du soof de maanaam xamoon nañu ñu ngi ciy xaar xeex bu metti damay ragal ñu ñëw duñ xeex sax far. Hmm. jëllaam waaw. lu bëri loolu laay ragal. kan nga gisagum ne nii. waaw Modou kon daal Modou Lo moo téye làmbam. actuellement nii moo teewagum làmb ji boo Bombardier moo teewagum côté am Eumeu Sène moo teewagum côté am waaye Eumeu Sène dafa manqué benn fort dafa manqué téye combat bam jeex. Mhm. Bombardier Bombardier gaynde la bu màttee du bàyyi ci gàllaaj ak ci lépp ñoom ñaar ñuy bari na nu moom koo ci wax koo ci wax na mën naa daan sa morom da bopp ndax Balla Gaye dama naan faraluma ko waaye ku ko naw la ndax jomam ak fulam. nit ku nekk na sañ nga ne faralu ma diw parce que bëgg xaalis wala bëgg nit ki ñaanal nit ki tax nga wax loo xamut man Modou moom la moom laa bëgg te yàlla rek tax waaye bal nangu naa ne Balla Gaye du moromam moo ko man loolu wa shahidnaa illaa bimaa alimnaa noonu laa nangoo noonu laa nangoo noonu laa nangoo mais saison bi bu làmb bu dee làmb am na dana bëri làmb yu soof ah. am na. waaw bu dee am na dana bëri soof. kon ba léegi wóoragul ne lamb ah, nag moom suma xam-xam àggu fa xoolaguma ko loolu moom ñoom ñoo ko mën a lijjanti. Hmm. Euh, feex bi des na benn combat muy diggante Tapha ak Boy Niang. Hmm. boobu yëpp loo ci gis. boobu gisuma ci daal. Hmm. waaye bu ñu sukkandikoo daal ci li nga wax ne Boy Niang ci yoonu jël roi des terewul taxaw terewul mu terewul mu daanu terewul mu daan. mën na daan ba pare jël roi Modou Lo def Eumeu Sène da ko daan ba pare mu jël roi te bi muy bëri am astafurlaa Balla Gaye bi muy bëri Balla Gaye bu njëkk euh, ñu bëri di wax dama ne leen dañ koy daan waaye bu ñu ko daanee bu Eumeu Sène nelawee ba jël ko ñàkk roi am ma koy waxee maa ngi koy waxee digg Pikine laa ko waxee benn kër xarit wallahi lazim na ko def loo bu Balla Gaye Modou parce que Modou ñaar lañ ko tegal mu tànn benn bi waaw dëgg la daan ko naq dina ko waaye jël roi gën a neex maa maa ci teg loxo samp nit alhamdulilah maa ci teg loxo ah wow ci bantu bantu gaal lañ koy def rek gaal yi dem ci géej bant bi lañ koy def rek laa ko laa koy def rek. waaw ah. samp ba mbër mbër mboppat kay dafa dafa sori mbër yi ci arène bi rek. Hmm. waaye nag mbiru mbiru mbiru làmb yim laaj dëgg duma ma ko def parce que man jaamu ko tu yàlla la. waaw du ko def. xalaatuma ko mën naa ko mais dama ko def am na xam-xam yoo xam da nga koy jàng rek pour téye ko mais koy jàng pour defal ko nit xalaatuma ko bu doon ay milliards soxlawuma ko parce que sama diggante sama borom laa gën ci loolu hmm. lii li ma gisagum laa wax rek te tax tekkiwul ma ma bëgg kenn ñëw doy na bëgguma benn mbër ñëw fi ci man mbir xaalisu mbiru làmb moom doy na sëkk pour ma waaw pour ma teel ko pour nit ñi xam ne ki li muy wax nii maanaam utu ci dërëm wala nangam parce que nit ñi da wax sax ñu dugg commentaire waaw nangam nangam te xamul ne maanaam man lu mu gàtt gàtt am naa tolloog junney nit yoo xam ne maa daan jox werdu tijaan ñuy werdu surtout xalifa ñes direct la dañ may jox addee may lekk waaye lu waral wax ji ñëw wax ñu xam bu ñu waxul rek ñu xamul réer